tàmbali ngaa am Seydina Muhammad te di nga noppi ngaa ñàkk xaalis ba kara ngay sàngo suuf yàlla yéex oh, daal di ne ko yow Waly bu fekkee ni gëm nga Seydina Muhammad bëgg nga rasulullahi soo ko tuddee doom deesu la rawati mukk ci musique Sénégal nee na moom mii nag moo ko wax suñu doom moom la leen tuddee moo ko wax de wallaay dëgg la nee ay deux heures du matin mm-hmm.